mbokk yi maa ngi sof sama nuyoo oh, ci ñetti nuyoo maa ngi ndokkeel suñ set bi fi jàngal xuraan léegi suñ set bi fi jàngal xuraan léegi di doomi suñ mbokk Mouhamad Nazir Niang ak suñ set xajane ne mbooc doomi Cheikh Hussein Niass radiallahu anhu boobu maag Boucar ñu ngi koy déglu bu baax ma xam ci ban ñu ñu ngi déglu ba ci ban madarasa lay jànge alquran <clears throat> ak naxamaat yii muy def ca Égypte ña ko man ci yan kulliyaat la ñuy génnee ak ñaata at lañ koy man ci atam yu tuuti yi génn gud mi dina bëgg-bëgg rek la ak ñaani mag ñi ak seen liggéey bu dëgër moo tax nit xale bii tey mën a toog fii di roy nooy na te kenn ci kenn ko sore rek da nga naan moo toog di jàng maa ngi kontaan ci loolu da ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla def bag yàlla ko yàlla wattu beneen bi mooy suñ jarbaat beneen jarbaat kee suñ sët kii suñ jarbaat la si Ahmad Bukaar euh, dama mës a fàttaliku ci jamono bu yàgg yàgg yàgg yàgg Boubacar mii gën na fee doon xale ñu toog ci buntu kër Cheikh Awa Seck man Serigne Mamoun Seydi Arabi ñun ñëpp ñu ngi toog noonu ci ngoon waxtu ngoon toog di waxtaan foofu di xaar timis di naanaale ataaya dégg ko muy daay mu am mu amoon grubu bu daayira groupe bu sikar ñuy jàng benn xasida Baay si daaram ku mën a seetlu la dafa bari lu muy setantal bu baax ci waykat yi xam nga nit ñi dañoo foog ne xasidaay Baye yi neex baat rek la du neex baat rek madras moom mi ko def ci école bu rëy la génnee xasida yi mbëggeel ko tabax waaye mbëggeel googu xasida yépp ci école bu rëy la génnee boroom dafa jàng fa jàng ba jeexal téere yépp lu nekk mu xam lu mu koy waxee ak fu mu koy waxee mu dégg ci bukaar mii mu xam mi ci baatam dégg ko mu def lax na njuumte ci benn bayti maa ngi koy fàttaliku bu baax mu oo ko mu ñëw mu ne ko yow juum warul la yow yow demal nga jàngeyaat xas demal nga yokk sa àllu yow génnal ci lii te nga dem jàngi yow yow yow yow juum warul la yaakaar naa wax jooju moom bi ko nijaayam waxee loolu dégg na ko wax dëgg yàlla boobaag léegi waxtu toogee boo ko dégloo tey yii nii boo ko dégluwaatee beneen yoon da nga xam ne bu ko ngi def ay jéego ci góorlu bàyyiwut raxma jabbaar bu mag bi di dépasse almalun moom moom ah, moom raqabaatoo raqaba ah, kii qadamaahu ala kulli aalimin lillah waaye moom mi ngi góorgóorlu bu baax moom itam maa ngi koy ndokkeel maa ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk yàlla guddal fanam yàlla yàlla bu xelam jaxasoo maa ngi ndokkeel ba tey su ma beneen xarit kii suma rakk la suma xarit la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi baay Cheikh Mouhamadul Khourachi ñoo bokk sëriñ ñoo bokk jubluwaay ñoo bokk masharab ñoo bokk lu ñuy bëgg ñoo bokk lu ñuy bañ su turuq yi ñu koy bañee uuti sax ñoo ko bokk léeg-léeg ma déglu ko mu wax ci biir waxam ma xam ne ni ma bëggoon fi ma jëmoon fii la jëm waaye yoon wi ma jaar dafa sori ba jubbanti maa ngi koy ndokkeel bu baax ci kalima bii mu def fii kalima nayiira la tudd muxtasar siyaasi la tudd daf koo résumé àddina bàyyi daf bàyyi bàyyi lenn benn coono rek la bàyyi amoon mooy bàyyi dafa jiitoon ñooñ jamonoom ci gis-gis su nga ba Senghor di doo président bàyyi di contesté ak xamoon ne dinañ egsi fii ci jikko yu yàqu yi xamoon na ko bu baax walla yu yàlla lépp lu mu ragal rek yàlla won na ko ko ba pare waaye nag naka bu boobaa fa baatinul ardi awla min zahiriha boobu bàmmee la gën biti waawaa dund dootu dund loolu rek la woon lii mu wax nii dañ ci bàyyi suñu xel ñun ñëpp dëkk bii am na sax ci sénégalais yi ñoo xam ne baaxatuñ baaxatuñ te neexatuñoo defar ndax defarkat yi fi mu ne yàqkat yee leen ëpp te ñoom lañ jox wasaayili àddina bépp ñuy yàq maa ngi dégg Mouhamad mii muy corriger benn waay keroog maa ngi ko gis ci YouTube mu ne dafay wax ak Baye mbay ne ko barki dem boo jaay la fi sa maam daw dem Gàmbi ah mu ne ko ku génn réew rek dafa daw baatab daw bon yaatu na de te yàgg na ci àddina gën ji yàlla bind nga xam ne boo ko yàlla indee yónni ko moo ko damaanal ne ko sa li yónni nii dana am najaax dana wër àddina dana mel ni jant digg ba cëg te nit du man ci yow dara wallahu yaasimuka min annaas yeer yaxu alquran la dégg nga danaa la dimbale danaa la dim yonent bi yàlla dimbale ne ko ba dimbalee ko ay malaaka pourtant mu amara bu ndaw boobu waa Makka defoon yàlla def koo digal ne ko génnal gaaw gaawal génn génn Makka dem Medina te war na gannaaw Makka xool ko ne yàlla dëkk bi ma bëgg génn bi ma gën a bëgg ci ma xool maa ngi fiy génn yàlla nga ma yóbbu fi nga gën a bëgg yow te muy sa tànneef kii Muhammad mi ne ko doo seet boobu ci ñi ma la mën a wax rek laa lay wax Cheikh Ahmad Tidiane fu mu juddoo ca Aynu Maadi ca Faas fu mujj ca Jazaïr fu mujj mi ngi nii ci Faas ci Maghrib foogoo ne kooku itam mi ngi àndoon ak loo xam ne mun toon a ak moom fa mu dëkk ci biir biiri bokkam demet seetal taarix yi ñu ngi ci xam ñépp tudd na léegi Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu Omar ibnu Saïd nga xam ne fu ko maam Alaaji Abdoulaye Niass mos tudd dana ne sama sëriñ nëbb sa nëbb fu ub maanaam wan gannaaw bunt bu la yàlla joxe xéewal di ko fakk loolu óorut maam Alaaji Abdoulaye Niass waxtu wut mosaan tudd Cheikh Omar Fouti dana ko jox gëddaam dana wane ne yiw wii ñu nekk li ci dugg fii ñun ci Sénégal ci moom la ko yàlla jaarale ci des nag xam ngeen ni mu mujj mu ne ko Cheikh moomu ba léegi kenn xamalu ko sax foo koy ziyaara demet nag topp ko par benn benn benn benn benn benn benn mu mel nii saaga sëriñ dafa xew fi mu nekk te mënta ñàkk ci réew muñ bëgg a yàq réew muñ bëgg a yàq pastéefam ak jubluwaayam bu baax alors fokk dañuy yàq dañ koy gis nga ay référence am ñoom lañuy ñuy ay référence ñoom lañuy ñuy déstabiliser seen ngeen dugg ngeen dégg ñu leen tudd di leen leen saaga di leen xas loolu ci risaala bi la bokk bu loolu mokkee yoon woowu bu mokkee rek li ci des jaaxalut nit ñi pour def ko du doon dara bu yuutaat yi nga xamoon ci Sénégal yépp muy ay famille yoo xam ne famille yu baax lañ fu ne dañ tànn ka fa baaxoon di ko saaga wala ñu jiiñ ko lum doowut benn fay la suuf mos naa xam ne ñu ngi dund ci àddina boo xam ne bu la nit ñi xamalee lu lu baax dañ koy nëbb bu ñu la xamalee benn bu bon danañ ko siiwal àddina bi yépp dégg ko bu ñu la xamalu dara ñu créé ko ñoom seen bopp ne def na nangam ak nangam ci àddina boobu ci la ñuy dund ñun fi mu Sénégal maa ngi laajte rek bàyyi ñas mii di suñ sëriñ Xaaj Abdoulaye Niass di baayam nga xam ne bàyyi moo ñu wax ñi ngi toog di jàng mu ne araab yi dañoo am lan weku warixu mu ne am nañ warixu am nañ aw awraxu mu ne su ma bàyyi nekkutoon aw awraxu la woon su ma bàyyi daf daan gis lu dagan mu dànd ko kilomètre ndax bu mu egsi lii sax dagan na ku ko def baax na ku ko defutit yàlla du la wax dara mu ne foofu sax sama bàyyi du ko jege zone boobu ndax bañ lu bon waalam an nii mus mën na mus ma mën na allahu alayya bi wujudi daarin maa akaltu zakata maalin wala xarsin wala zar'in wala ukilat fii bayti ma kasrati man yu'tunani iyaha walakin ni kuntu asrifuha fi masrifiha shar'i ma sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakin loolu ma laa jëkk ko wax ba ma xammee samp kër ba léegi musu ñoo lekk musu maa lekk asaka musuñ koo lekk ci sama kër te réew mi yëpp ñu ko fiy génnee man lañ koy jox ndax xam naa ñi ko moom te njaay laa tudd leen ci laaya ji léegi ku fekkoon gaa yi baax yii di wax naan nangam ñun la ñun la ñun la ñun la ñun la nga jël ci benn cinq millions jox ko nit ne ko lii sama asaka la da ngaa foog ne dëkkandoor mi sax danañ ko yëg sa kantumaa mu ne la man warumaa jël lii mu ne musuma koo lekk te musuñ koo lekk ci suma kër li mu daan defloo taalibeem la daan defloo doomam bàyyi sax mos nañ koo booleeg moom ne ko Ibrahima mii duy liggéey ci kër gi rek la toog suma maam Ndoxti Njaay moo ma ko nettali ci soxna su ndaw maam alaaji la woon mu oo ko mu ñëw mu ne ko ah, yow Ibra dégg naa ñëpp dañ may liggéeyal waaye boo xëyee ci kër gi ngay des mu ne ko dañ laa wax loolu walla da nga koo seetlu mu ne ko dañ ma koo wax mu ne ko maa ngi lay ñaan boo xëyee tey boo xëyee suba ñu war a dem tool yëpp taaj leen ci kër gi nga dem ca tool yow vérifier sa bopp ba xam doo fa fekk mbayeef gu ees wala déet boo fekkut luñ bay boo ñëwee xamal ne man bokkuma ci sa doom yu baax yi lay liggéeyal maama ji def lu loolu dem ba gis àll bu bari buñ fa bay mu ne ko lii ku la ko bayal mu ne ko bàyyi man damaa xam ne dag may soxla fii ma toog sa buntu néeg man ngay yónni sa soxla yépp man nga koy yónni te bugguma doomi jàmbur yi di la liggéeyal ma toog du ma def loolu ndax liñ bëgg bëgg naa ko bu buñ noddoo nodd bu njëkk maanaam bu doy léegi nga ne xam nga ñu ngi julli lan 6 lan 6 heures demi la ñuy julli bu 4 heures jotee man ma dem tool su ma demee bay li ma war a liggéey balaa waa kër gee yeewu sax di préparer ay julleeg ay nangam ak nangam ma ànd ak ñoom ci zaawiye bi julli su ma ñëwee man damay toog ndax moo ma soxlaa gis ma yónni ma. mu ne ko looloo taxoon may def loolu moo tax mu ne liggéeyal naa suma bàyyi ba mu gërëm ma comme ni sëriñ di gërëmee taalibe bu baax demoon naa bay mébét kuntu atamanna law udina lii an aqtatia ayaman aw sanawatin min umri hadiyatan li walidi mu ne su ma mënoon loolu danaa ko def bokk ma ci doom yi nga xam ne dañ daan mébét seen bàyyi gaaw fee jógee ndax ñu doon dara musuma def loolu ma saahu minni shay'un illa suu xat yi wa hada gaayatu tazkiya fi misli walidi bàyyaa bind loolu mu ne mbind mu ñaaw rek moo ko naqare woon ci man te ku xam sama baay da nga xam ne soo sama baay yombatoon dafa jafe woon loolu rek a ko naqari woon waaye mu ne bu dutoon loolu sama dara na musu koo naqari li ma amoon lépp daan naa ko jox te amoon lu bari sax taalibe baayam la woon xaadimam la woon mutiya naka jekk nag yàlla def na ci moom loo xam ne defu ko ci kenn ku bàyyam jur bàyyee ñuy nett li mu ne ma Abdoulaye wul du xaaj ñëw na fekk sama bàyyaa ngi toog mu ne ko dama bëgg a gis sawaa kër wan di doomam yu mag yi mu ko bu ko waaw ne ko Cheikh Abdoulaye lii rek mooy sa waa kër ko ñi ci des ñu ngi ci daara ji mu ne ko sawaa kër laa bëgg a gis mu oolu leen ci daara ji ñëw toog mu ne ko ma wax mu ne ko déedéet mu ne bu mu demee bàyyi mu ne son bàyyi mu ne xam wax dafa foog ne dafa foog ne xam noppi xamul dara li mu bëgg a wax nii ndax daf koo xam rek maa ko gën a xam fuuf ay eh, man duma koo wax looloo tax ba bàyyi naan yàlla jox na ma yàlla jox na ma xam-xam boo xam ne daganul sax keneen ma ma di ko xam baytu ba dum tudd Muhammad dem doo duur xat xas sani bi zikri déedéet déedéet déedéet euh, hmm? ci uritu bi xayril xalqi la de wala ci la ilaha illa allah wa maa qultu shaari wa maa qultu qawli shaatihan mutabajjihan wa maa massani waaw sukkurun yugayyib wa maa qultu haada duuna idnin wa innani la aktumu sirran laa yubaaxu li gayriya la aktumu sirran laa yubaaxu li gayriya bàyyi na su ma ko waxee la ajmaa alfuqahaau wal ulamaau ala wa abaaxu dam yi wa hum ala xaq am na maa yàlla ma jox xam-xam boo xam ne bu ma ko doon wax boroom xam-xam yépp dajala ne sama deret neen na nañ ko tuur te boobaa ñu ngi ca dëgg wax nañ dëgg moo tax bàyyi mas naa tukki rek fàttee dénkaane daara ji ñu toog bu ca ëllëg sa rek ci yoor yor ñu ne ah bàyyi kum dénk daara ji ñu ne ba loolu daf koo fàtte bi yoon bàyyi na man danaa jàngale bàyyi na dinaa jàngale bala ñoo julli tàkkusaan am na ñu yàkkam sax ba lal jàngu bi indi pliaan bi maamalaa ji daan toog lal teg der bi def ci der bi lal basang yi lal yëpp ñu génn ci zaawiye bi rek ñoom ñëpp ñëw toog bàyyi egg si taxaw ñu ne ko yaa ne da nga jàngale ñu ne waaw mu ko toogal mu ne du ma toog ci sama place yi bàyyi adab mu ngay jàngale xaat adab laa ajlisu ala maqaadi walidi ku nekk waxal fi nga tollu ñoom ñëpp ku ne wax ne jaa maa ngi jàng téere sàngam maa ngi tolloon nangam fi mu taxaw du la wax indi téere ma xool de muy jàngale rek muy wax rek ba nga ne doy na jazaakumullaahu fiq balaaga mantiq naxwu sarf badiya ulum yëpp mu jàngale ko am ku ne lii sama baay daf ko koo sol daf ko koo jàngal guddi xaaj Mouhamad Zeynab bu ne ko yow miy jàng guddi ak bëccëg xamoo lii yow mi boole guddi ak bëccëg di jàng mënoo wax lii ne leen génn leen ci kii uxazirukum maa ngi leen di moytandikuloo génn leen ci moom yéen a ngi koy xooloo bëtu nit kii suñ doomi bàyyi la suñ rakk la suñ nàngam la suñ nangam iyaakum kii mbiram yàlla la sha'nun min shu'unillah su nga ko ci moytuwul rek da yàqu moom yàlla mayoon na ko moom naka jekk mu xam loolu waaw xam ne bàyyi mii sha'nun min shu'unil haqq waaye loolu yëpp si nga dafa bëggoon baayam daf koo xormaaloon dafa amoon ëdëb même mbokkam yi sax ay magam kum ci ñëw rek ci yow ci yow rek dana la won ne la ñoo bokk baay waaye sama doomi sëriñ nga man ci suuf lay toog bàyyi bi mu njëkkee kenn njëkk koo am magnétophone fii foog naa kii moo ko andiloon xaw ma ubbaari ngim la xaw ma Mahmoud Anta Mahmoud Dantata moo ko njëkk indil magnétophone fii boobu nit ñi xamuñ loolu bàyyi bi fi njëkkee gàmmoo rajo rek am na nit ñu bari dañ doon daw fii ci Saloum ba rajo bi waxee bàyyi wax rajo bi wax am na ñu bëri dañoo daw ñibbi Mahmoud Dantata indil ko fii magnétophone mu yóbbul ko Baye xalifa ñoom ñu wax ñu play mu wax ah mu ne ko loolu sama xasida sàngam danañ ma ko ci defal teew mii yaa koy jàng bàyyi toog di woy di ànd di dëbbe am ñu koy aw muy jàng ba xasida bi jeex takk ci kaset loolu adab rek la loolu bàyyam rek la doon ixtiraam du lu ko nit ñi teg yëpp dafa bëggoon bàyyam ixtiraam bàyyam ixtiraam ñi nga xam ne ñoom moom ma bokk baayam te ñoo ko jiitu ci at ci zaahir gis nga adab boobu bii mooy bi Muhammad doon wax képp ku ko amut ut ci bàyyi dara ut si woo fi dara dangay ngay sa temps rek jaru ko kaw la xam ngi nii mën nga fee dem léegi ci koñ yoo xam ne benn waaye mës na ma ne ñëw suma kër waxtaan ak man yow man bi Baye Niass di génn àddina am naa 40 ans te musuma gis bàyyi Niass ma ne ko foo dëkk mu ne ma Saara Njugaar ma ne ko ah yow de nekk góor nga waaw góor nga mu ma waaw ma non sëriñ bi bul ma wax loolu ah, ah, Saara Njugaar gii nga am 40 ans bi nga bàyyi di génn àddina am nga 40 ans te xamoo Baye Niass ah ma ne ko waaw loolu mën naa am dana jëriñ Baye dana wàññi Baye Niass dara moom xam nga lu mu lay jëriñ yow. Baye ku daan xasar nit ñi la ci alaay bii yu istiamaar nit ñi nga xam ne dañuy xeex diine maa xam ngeen ne yi ngeen di gis senegal nii musut fee jóg waaye boroom jamono fi nekkoon xam ko bu baax ilaan xarb da nga contre leen te di leen wili pande waxtu wu nekk ci addina bi ñu di ko dégg mille cent soixante-quinze dama dem Paris bi may jógee Qahira man leen man maa ngi dem bàyyi naa jàng affaire bi dafa metti trop te lii du jeex te ñun dañoo nas ala baballah dafa métti ñaari fan laa fa am rek bàyyi ñëw ma gis ko mu fixé ma kenn njëkku ma am carte séjour boobu at moomu France a ngi mayee carte séjour ñu ne soo amee firnde lu wane ne jaaroon nga mos ngaa nekk France 70 soo wane loolu rek ñu jox la carte séjour ñu mu ñu bàyyi di yóbbu Qahira Dakar Paris Caire la woon boobu billet bi soixante quinze mille lay jar Air France man ak Cheikh Makki mi ak Abdou Salam rahmatullahi alayhi moo wane passeport boobu rek bu bu màggat la sax ñu defal ma carte séjour cinq ans dama ko renouveler deux fois trois fois am nationalité bi bàyyi ma toog ak bàyyi ci ci hôpital mu xool ma nii fixé ma ma di ko xool bu baax mu ne ma Bachir mbaa sax xel mi bàyyi jàng nekkul ci ngi tëdd ci firage marat ñi ma maa wax dara ma ne ko déedéet te man waxoon naa ne bàyyi naa mu ne ma jox ma firnde ci ne da nga ma ne ko bàyyi maa ngi gëñ ci sa dund bi mu ree ne ma xam nga ne loolu du gëñ billaahi wallaahi tallaahi ma ne ko man loolu bëgg man sa tur jaral na ma ko mu ne ma nangul naa la ko xam nga lu ma bëgg dem leen ngeen jàngi gis nga oto yu bari yii ak mbedd yu yaatu yii ak taaxikoo yu gudd yii bu muur sa bët mukk dem leen ngeen jàngi bisa ngi ñëw wallahi wax jooju ba léegi daf ma métti bisa ngi ñëw yéen ñii ma xam ku ci jàngut danga wax doo noppi te bu réer daga noon em ci sa bopp doy na waaye du ngeen em foofu dangeen ngeen sànku da ngeen sànk ñi leen wër kenn ci yéen nag du noppi da ngeen wax waaye dangeen di sànku sànk ñi leen wër wax jooju 1975 74 ca feeba dama ko bàyyi wax dama demal jàngi demal jàngi waaw moom suma kàttan suma poos jàpp naa ne jeex na lii moom moom mooy mooy umniye bi te boobu àddina boobu ak bii du benn aw tubaab yi liggéey yomb na fa lool loo def ñu ne kaay liggéey am dara ma delluwaat ci alkare ji dégg nga boo lekkee doo naan wala boo xëyee ndékki doo añ muhim loolu la bëggoon mu ne bëgg naa képp ku ñuy askan suma bàyyi soo defee dara sax juum su boroom xam-xam ñëwee dafay wax ne jëf jii de ki ko def moo ko tey wante boroom xam-xam la mu ne man loolu rek laa bëgg buñ askan kenn suma bàyyi ngay def ci jahaala wallahi lazim masuuliye boobu moom la bàyyi en ñëpp ñëpp la ko yen moo tax emutoon ci nit ñi sëriñ si nga xam ne dañuy jàngal doom duñ jàngal taalibe benn sëriñ mos na koo wax ki fii ci Medina na ko Sidi Ibra damaa dégg ne da ngay jàngal say dongo taalibe dee su ko jàngal mu ne ko man ku jàngut mënoo doon sama taalibe ci xam-xam ak ci alquran ci lay tarbiya ay taalibeem ak nuurul mubin bàyyi sa xel mi lay waxal li yàlla di wax ak yow li yàlla di waxat sa jëmm ji loolu la yàlla moom bàyyi loolu lay waxal xam nga dégg nga ñaan yurfaawul qalamu anil majnuni xatta ba dégg nga wa anil naimi xatta yastayqida wa anil sabiyi xatta yaxluma ñàkk xel rek lañ ci jublu yooyu yëpp boo àqali la waaye nit bu amee xel xel mi ngay waxal waaye xel rek lay waxal maa ngi dégg benn kasetam mu ne fii ci Sénégal doomi sëriñ si yàq nañ ci diine ji yàq goo xam ne te dara indili ko lu dul ormal guñ ormal seeni baay ak seeni maam mu ne mu ne mu ne mu ne ñi ngi sant yàlla bi yàlla amul doom xaw ma bu yàlla amoon doom fu ñu jëm doomu sëriñ ñu la askan sëriñ nga ne maa damay naan sàngara jahratan amaama sénégaliyina alladina yaddaai aglabuhum annahum muslimun nga ne ana awaqirul xamr ñuy def ñuy daanu ci sa kanam loolu sëriñ la moo tax mu ne sëriñ soosu mu ne kii wax loolu du sëriñ ki ko topp du taalibe ñaari seytaane yu dajee lañ rek di dimbalante mu ne yonentu yàlla muhammad mi taxaw ci kaw min baram law saraqat fatimatu buntu muhammadin la qataa muhammadun yada mu ne yonentu bu foor boobu tax yàlla bind lépp moo ne si doomam sàccoon mu dagg loxoom ne yonent laa fatimatu ak usaama bu nit ñi ñëw àllaaxira mukk ak seen jëf yu baax ak seen jëf yu rafet ngeen ñëw fa naan ñëw yonentu bee bokk dara liggéeyal liggéey leen xoolal Cheikh Ibrahim Niass mii nee naa lu ne wax nañ ko ko fii ci Sénégal nii bil fisq bil fisqi wal kadhibi wa zuuri wal wa wa wa wa lu ne wax nañ ma ko mu ne jiiñ nañ ma ba jiiñu lenn rek lañ ma jiiñagul de ne jur naa doom te góor du jur doom mu ne waaye kii wax lu bon soo koy toppandoor moom du dem fenn wante yu tam doo dem fenn dañ fi nekk di saagante rek jaru ko mu ne loolu xijaab la sa digganteeg yàlla bëtt ko nga dem sa yoon xam nga lan la mu ne xaaris si sijne kal masjun garde pénitentiaire moom prison yooyu am képp kenn du daw waaye moom du dem fen toog rek ci sàcc yi sax ci lay am xarit am ngoog duñ dem fen doo dem fen bàyyi mu ne noonu la jëflante mel leetar bi mu ngi nii mu waa Mauritanie la ko bind mi ngi nii ci sama téléphone mu ne wax ju bon mi ngi mel ni tëng boo waxee rek andil nga ko sikket ñu toggoo jur doom jeex na waxante lu bon rek a fii nekk taalibeem nag mu ne dana àgg moom ba nga xam ne ki bon dafay ñaan yàlla ne kii yàlla ko yàlla delloo ci yoon ki baax mu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla saxal ci lii mu nekk waaye du fi nekk sax mu ne bu nekk immaa yi déedéet jaru ko bëggoon na nag taalibeem mii naqe lu nekk waf dem ba mu ebaloon ca Qahira ne ñëw ñibbi si leen doom lu nekk Mouhamad a nii def na fi géopolitique li xew ci àddina bi ak li koy xamba ak matt mi ak ñi ko jënd ak niñ bëgg suñu réew mi mel lépp talxiisal na la ko ci lu matut 15 minutes 20 minutes te xaqiqa mujarrada la boo xam ne boo utee lu dul loolu doo ko am mit na Baye gii Medina Baye gii yéen ñëpp fekkee ngeen ren gii politiciens yi ñëw fi ñu daral ko fii ci këru gan ay dahma la masulun topp ko ci koom te ay course nan ko ku sore ki ñëw nga yow lañ doon xaar yaay suy sëriñ taxaw moom ci tali bii di ko dajaleel addiye uqsimu billahi alazim nahaaran ñoo ñaay taalibe bàyyi lañ pourtant bàyyi ne woon na madinatu kalkiiri yonent waxoon ne madinati kalkiiri xam ngeen kiir mooy lan mbaaru tëgg boo fa demee muy def nii muy liggéey yonent mu ne doo fa doo fa jëlee dara peppi safara yi naaw lakk sa yére ak xet gu naqari moom nag mu ne yonentu ne moo tax yo kiir mel di tàggale weñ bu ñuul ak tilim di tàggale urus ak li ko jaxaseeg moom ba mu dellu di zahab xaalis bi dellu di xadit xaalis mu ne noonu la madina mel yonente wax loolu bàyyi ne saralaha sirru madinati nabi xabasaha tan fii bila tarayubi man kaadaha fa bi za bidairin jarat ziyu laha alxawaadiri gële mbootam royaat na fii naa fekk bu fi nekk sax da nga feeñ yaay feeñal sa bopp kenn du la ko wax bis da la ñëw rek nga xamal nit ñi ne da ngaa dëkk Medina waaye dëkkoo fi da ngay ootee bàññees waaye waxoo dëgg kenn mënu ci dara da feeñ looloo tax ñu mën a géewal Cheikh Ahmad njaay mii am ñoo xam ne buñ duggoon ci tànt bi léegi ñu am fulla dem ñibbi tëri saadiq basduq la man qiila maa qaala lahu fama ata bàyyi masta soppi dara ci li yonent bi indi bañ na ko sax ba ne ko yaay sama lépp muhammadun umdati muhammadun wasari ana tufayliyuhu wabni musammaahu in ara dikra siwaahu gayra lahwin bu benn ba mu ne tey fu jinnin laa araani ku dinne ku jinne jàpp la man jinne jàpput ma tagg ku dul yonantu wala may bëgg ku dul yonantu wala may roy ci ku moom du ma def loolu a ah, diine bi gën ci diine yi yonant bi gën ci yonant yi sëriñ bi gën ci sëriñ si Baye Niass mii lim ko yàlla jox nii su neexoon yàlla du indi keneen ku mel ni Baye Niass wala koo sut yàlla am na lu man waaye dootu ko def waaye du def loolu ma bañ kum neex nag bam naa noo man saa <laughs> kum neex nga ñëw man sha naawahu bàyyi xam na loolu waaw ku andi ba ku teg ku taxaw ci kaw mbaggi Baye Niass ci wilaya ak maarifa yàlla dootu ko andi yàlla tëlewul dara de mais yàlla dootu def loolu jeex na moo tax mu ne ku ñëw ci moom rek jeex na wala nga ñëw ci ku ñëw ci moom salaasil yi bëri na mbir nag bu demee ba agsi fii mu egg si Baye Niass étiquette boo ko takk marchandise la boo xam ne marchandise la marchandise moo jël étiquette yi Baye Niass takk ci àddina yëpp jënd ko ni ñaam na ci ñoo xam ne àddina rek la ñuy jàmm ak xaalis da ngeen a foog ne xaalis Baye Niass xamutoon luy xaalis xamutoon luy taaxi ko xamutoon luy oto bu rafet xamutoon xamutoon xamutoon xam na yëpp waaye dafa joxoon boppam yàlla liggéey ci àddina bi dafa wax ne noos xajut addi ci àddina mu ne àddina bi noos xaju fi àddina <laughs> tuuti noos xajut fi noos maa nga fële ku bëgg a noos xaaral fële benn waaye dafa mas a ñëw ne ko damaa bëgg a ci waxambaane yu njëkk yi dama bëgg a jéggal sama jabar bàyyi na ko bàyyi moo ko may xam na ko xam ne li mu koy laaj borom xam-xam loolu lay def xadaya bu ne dafa war am ay xaysiyaat bala nga agsi ci xukmu mu ne ko mën na dara ci liggéeyu jigéen mu ne ko ah moom kay li ma sol moo ko fóot dëgg yàlla te mën naa togg am ngeen dara ci bant boobu ku fi am jabar bàyyi la ko may ku fi am doom moo koy ngénte <laughs> lépp xam na ko am ngeen dara mu ne ko am na ñaari bant mu ne ko tàngaa xaar jigéen jurut xarab jëkkëram gisuma ko fii ci àddina al aljanna lañu ko yàlla dig daa ngaa xaar bañ dem aljanna yàlla ñu fa yàlla yóbbu ma yow waa ji sax ñaan googu rek la ñu jël si da ngaa xaar bañ dem aljanna rek yàlla ñu fa yàlla yóbbu waaye jabar gi du wax dara jëkkëram mu ne ko yàlla indiwut ko fii ci àddina ndegam yonentu muccut ci ku ci bëgg a mucc borom mu soor yi day wax dëgg yàlla ah ñooy suñu su diini de ndax ni takk na jabar ñëw ne yonentu takk naa jabar mu ne ko am nga sa laqat laqat xasalta ala nisfi diinika fattaqillaha fi nisfi saani waaw góor gu amu jabar moom tekkiw dara dara dara dara wax dëgg yàlla moo tax ku ko amagul yàlla na nga ko am bëgguñ ñaareel nag waaye ku bëgg a ñaareel it yàlla na la yàlla dëgg yàlla bëgguñ wujju waaye koo bëgg it yàlla na la ko yàlla may <laughs> dégg maa ngi tëjee ci adab si daal si daf maa fekk Qahira ñow ànd ak doomam imam Hassan Cissé Mouhamad Cissé mii ma nga fa mu ne ma damaa bëgg a ziyaare dëkk bii ndax sama sëriñ ziyaare na ko dégg naa ko muy tudd Azhar bëgg naa koo gis dégg naa ko mu tudd niil niilu Misra bëgg naa koo gis bëgg naa cee bëgg naa fi mu daloon it ma dal fa ñu dem ci Tawfiq Owayda aminul amil majlis euh, ala li sha'unil islamiyya ne ko ilimaanu jumaaw Cheikh Ibrahim ñëw na fi loo ko ma sax ba tuddee bàyyi rek mu ne marhab bi Cheikh Ibrahim yóbbu leen ko fu nduq niil ci corniche déglu li may bëgg a wax si nii bi ñëwee mu ne ñu sëriñ Aliou na ma fi la sëriñ bi daloon ma ne ko waaw mu ne ma man taax la daloon maanaam benn étage ban étage la daloon ma ne ko quatrième étage la bàyyi daloon mu ne ma du ma dal quatrième du ma dal cinquième est-ce que dégg ngeen wax ji du ma dal quatrième du ma dal cinquième fi bàyyi daloon du ma dal fu ko tiim ci suuf rek ah ma ne ko su troisième ak deuxième amul néeg nag mu ne ma ñu seeti feneen ñu laajte ñu ne ñu foofu am na néeg adab kooku xam na lim nekk lan la ak ci ban loxo la nekk lim nekk nii ci ban loxo la ko yàlla joxe xam na ko cëpp cëpp ji jaru ko bàyyi nag waxoon na ne léeg leen nga dugg ci kër gis borom kër gi dafa am ay bëy yu jigéen ak yu góor bëy yu jigéen rek ñu jox ko fa benn sikket mu eew ko ci biir bëy yu jigéen ñi mu ne kër googu kenn du fa nelaw benn bëy bu góor rek ci ñetti bëy yu jigéen mu ne kenn du nelaw ci kër gi dana leen dagg ñoom ñépp coow li su booxum lii mu ne gileem a ngi góor ci digg kër gi moo ko ëpp graisse fuuf ëpp ko yàpp waaye kenn du ko dégg asalaamaaleykum wa rahmatullah